bis bi ñuy waajal nag day bis boo xam ne ndigalu Sëriñ Tuubaa mooy màggal di bis bi gën a rëy ci ñoom ñu yaakaar Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad daa wax ne mooy suñu fête d'indépendance noonu ko daa waxee kon bis bii lépp lu ñu am rek ci lañ ko amee muy bis bu rëy bi Sëriñ Tuubaa santaane woon ko digle ko ne na ko ci ñëpp sant leen ak suñu borom ci lañ doon tàmbali ndaje yi nag di ko def liñ ci war a def wéradi gi nag xam ngeen ne gàllankoor na lu bare bare ci àdduna ba tax na sax màggal ji bi ñu koy wàcc lépp loo xam ne xam nañ ne mën na andi lenn ci gàllankoor ngir sàmmoonteeg fi àdduna toll ndax dañoo nekk ci biirum réew seq kook ñu bokk réew mi nekk ci biir adduna yi seq ko waa adduna kon mënuñoo bett ko ni ko Cheikh Mamadou Mountakha di waxee. mooy lu mel ne colloque international bi nga xam ne par ñeenti at lañ ko def jii yàlla def na ngir xam fi àdduna toll tax ñu sotti ko def ko ci xarala yi ngeen di tuddee léegi visio conférence ni mu ko defee ñu ne ko sant képp koo xam ne mën ngaa jël masque yi di ko takk. ñi nga xam ne ndax xëy ne am nañ ci gàllankoor ndax ñoo xam ne tax nañ jël kaala di ko muuru ndax laa darara wala dirara doo lool te doo lool ko loolu kon sëriñ bi mu ngi ci soñ ñëpp di ci sañ soñ bokkuteel bi nga xam ne euh, xam ne màggal gi bu soñoon ñëpp dañ fi indaale gër te bu ñu fi jugee itam euh, ak wér toppale mooy wàllu ndoxum Tuubaa ndax daaw màggal gi ndox mi dafa màgg te xam ngeen ne màggal gi am mu jot nit ñi dañuy yokk kon waris na ci def yitte ngir xool ni ñuy fexe ba déwén nam demee mu bañ mu bañ ne di ko waat yitte ji mooy fa saasa la daal di joxe ay ndigal ndigal yi résultat bi ñëw na tey mooy ñeenti forage yoo xam ne incha allah bu àndee doolu suñu borom balaa màggal gi dana àgg ak yeneen i seetlu yoo xam ne ñu ngi koy defaraat boole ci it juróom fukki kilomètre ak juróom ci réseau bu boo xam ne dana ci biir. ndox mi ngir loolu gëm nañ ne dana soppi lu bari ci ndox mi. mooy wàllu assainissement bi assainissement bi itam assainissement bi jëm ci wàllu ndoxum taw bi fa saase it la jox ministère bi ko yor digal ñoom itam def nañ ca lañ ca war def ba jël budget bi 23 milliards boo xam ne ci ndox ci assainissement Touba la jëm di ñaan màggal gi nga xam ne ndigalu Serigne Touba la ñu àgg ci jàmm. génn ca jàmm day ca tawféex day ca ndimbal te ñëpp it nañ ci ànd ak daloo xel ànd ci rafet jot ngir xam ne sëñ Tuubaa kat euh, mbiram suñu borom feggal na ko ci aafatu ak kon suñu xel war ca dal